Sénégal dafa am lenn loo xam ne mooy présomption d'innocence c'est-à-dire que bu ñu la jiiñee dara tant que dëggaluñ tuuma bi defoo dara donc kenn mënula teg dara sa kaw donc loolu nag le procureur Kédougou bii bëgg changé te nag moom amul maqaama changer loi Sénégal mu mel ci bëgg ñu donc ñun xam ngeen ministère de la santé dafa tëddee njaaxaanaay parce que moom la ñu euh, sas mu indi santé ci population mu ngi def effort yu bari moo tax centre de santé Kédougou euh, daanulaan am gynécologue léegi ñu fexe ba mu am gynécologue euh, loolu ñu ngi koy def ñun tamit ñu ngi ciy bay sunu sunu sunu sunu sunu liggéey ñu ngi def li ñu li ñu war a def Euh, pour que sunu sunu rakk yi dem fi gën a sori donc loolu bu xewee ministère de la santé dafa tëddee njaaxaanaay moo tax du décès bii rek mais décès bu am dañuy def audit région bu nekk da koy def mais bii ministère de la santé moo jug envoyé ay experts ay gynécologues ay médecins du travail ak ñoo ñëpp ba directeur santé de la reproduction ñu dem xool lu nekk ban heure la ñëw euh, lan lañ ko defal nan la xale bi ñëwee. te loolu dafa wane ne wax dëgg yàlla soxna si bi muy ñëw déjà amoon na ay facteurs yoo xam ne euh, wax dëgg yàlla mënoon na ci njàkk bakkenam te euh, doomam tamit mënoon na ko ñàkk malheureusement moo tax dañuy gën a euh, lancer appel jigéenu wérul yi ñuy respecter seen consultation yi di respecter li ñu leen di wax bu ñu leen nee waroo leen accoucher dañu leen war a opérer ñu nangu ko teel a dem donc yooyu moom mooy tax ñu mën leen sauver à temps bu loolu weesoo nag ñu wax ne ministère de la santé dafa def tëddee njaaxaay te dafa basé wu ci ay document ça veut dire que ay registre la ubbi xool date yi lan lañ ci bind loolu la ñuy xaar ci scientifique ça veut dire réfier rien que des faits yéen mën ngeen def le commentaire il est libre chez les journalistes mais les faits lañ soxla ci procureur ci docteur ci ministère ministère de la santé def na ko léegi procureur nag moom il nag mu mu delloo dellu boppam xalaataat xam ne nit ki jum du wees mag mën na juum xale mën na jum procureur mën na juum te procureur bu waree jum tamit dafa war a wàcce boppam xam ne jum na mu demander pardon wax docteur Faye jéggal ko communauté médicale jéggal ko faamu keddu yi gi nga xam ne moom moo tax semaine bii yëpp amuñu gynécologue ñu jéggal ko. li ñu tëj hôpital ah de toute façon moom moo tëj ñi doon faj moom moom moo moo moo ëppal ëppalu boppam ñu ne tell mu ne dagg na nit ki boo amul xam-xam da laajte boo déggee ne bopp xale bi maanaam am na nu mu bindoo laajal laajal boo laajoon gynécologue yi dinañ leen ne bu ñu mënul sauver ñaar ñëpp kenn ki ñàkk bakkanam il faut ñu def ay pexe pour sauver ko sauver yaay ji même bu ñu ko sauver wul mais loolu lañ buggoon boo mënul sooy ñaar bi nga sooy kenn bu ko xamee woon noonu peut du doxee di nit yi cest di dire que humilité naan wàcc wàcc sa bopp même boo dee procureur nga nekk docteur nga nekk président wàcc sa bopp dafa am solo. looloo tax doo def njuumte boo xam ne euh, di nga rëy pour dellu ci mais nag ne n'est pas trop tard pour bien fair juum na na na jéggalu dellu ginnaaw bàyyi ñii te tamit nag ministère de la justice xam ne. lii message la pour procureur yëpp ñun dootuñu accepter pour un oui pour un non ñu tëj suñu ay ñooñ duñu ay délinquant duñu ay sacc dañuy liggéey gis nañ fi ay policier gis nañ fi ay ay garde pénitentiaire gis nañ fi lu ne bu ñu amee ay affaire dañuy def enquête bi nit ñi fii lañ dëkk euh, dawuñu ñu ay nit duñu ay bandi nañ leen bàyyi seen ay kër ñu def enquête bi ñun dañu respecter justice parce que am nañ ay xarit ci juge am nañ ay xarit ci procureur yi xam nañ ne am na ñoo xam ne dañu respecter seen liggéey waaye nag justice spectacle bi lañu war a bàyyi waaw yaakaar ne il faut vraiment nga yëkkati ay mbagg def conférence de presse wax lu ñaaw yàq ko docteur yi parce que ñun amuñu bàjjan amuñu bàjjan waaw parce que dañuy jàpp tëj kenn wax maintenant c'est fini loolu nañ jàpp ne jeex na ku ñu tëjati bu yaboo ñu xam ne on a tëjuñu agent de santé système de santé bi lañ tëj parce que dañuy réagir ci Sénégal yëpp waaw